moom njiitu réew mi Macky Sall kon daal dinay jël ay décision loole nag collectif bi nga xam ne ay candidat lañ ñu daal di leen rëkkale ci liste définitive ñeel élection présidentielle du 25 février 2024 gannaaw ba nu bindi ab lettre moom président Macky Sall mu dal di leen recevoir ni ki mercredi bile euh, ci ngoon foofu ci palais euh, de la président palais présidentiel moom njiitu réew mi Macky Sall mu nekkoon occasion nag ngir ñu def euh, liste li nga xam ne moo di seen doléance jëmme ci processus électoral bi maanaam ñoom ñoo wax li nga xam ne moo di seen i mbibét ak seen i yéene waaye li nga xam ne moo di seen naxaar euh, ci li jëm ci processus électoral bi euh, ngir tontu ci seen requête kon bi nga xam ne adressé woon nañ ko niki le 15 janvier 2024 moom président Macky Sall daal dina recevoir àllarba ji le 24 janvier 2024 benn délégation boo xam ne teewaloon nañu fa collectif. bi ñuy duppee quarantaine de candidats yoo xam ne seen dossier dañu ko invalidé jëmee ci euh, ci luñ tolloon ci état bu parrainage kon loolu la ñuy lire ci communiqué bi nga xam ne jógee na ca présidence de la république ba tey communiqué bi dañuy xamal rek ne moom njiit réew mi Macky Sall daal dinay refarlu kon démarche boobu nga xam ne jàpp na ne benn démarche républicain la euh, bu jógee ci kilifa yu nu mel te nag li nga xam ne moo di seen i préoccupation daal di leen di teewlu déglu leen ñoom ñu représenté woon collectif bi waaye nag miy fàttali rek ne conseil constitutionnel ci décision am bu numéro deux barre E 2024 bu 20 janvier 2024 dafa rek daal di euh, fësal liste définitive bu candidat yi nga xam ne ñoo war a présenté wu ci élection présidentielle du 25 février 2024. Euh, loolee lan kon la ñuy lire ci communiqué bi nga xam ne jóge na ci présidence de la république ba tey communiqué boobee dinu xamaa rek ne président de la république mi nga xam ne kon euh, moo war a garantir fonctionnement normal suñu institution. moom nag daal di nay préciser maanaam fàttali que fàttali ñi nga xam ne ñoo teewoon ci waxtaan lu mel que ne constitution bu Sénégal ci article 92 dafa wax ne rek décision yu conseil constitutionnel nekkuñu décision yoo xam ne euh, nit mën na caa def recours euh, maanaam bu xasee jël décision rek dafay gàll ci ndodduk euh, pouvoir public yi waaye tamit ci autorité administrative yëpp ba ci juridictionnel yi. Euh, ci noone nag kon le président de la république di xamle rek ne mu ngay woy di nekk nit ku ubbeeku ku pare rek ngir waxtaan ci bépp question maanaam lépp loo xam ne rek laale na ak li nga xam ne mooy la vie nationale waaye sax euh, di euh, fësalaat euh, li nga xam ne moo di yéeneem ci nag ñu jëm ci élection yi nga xamante ni dina nekk élection yu am am solo campagne électorale ak scrutin présidentiel boo xam ne dina am ci jàmm ak salaam ak sérénité ngir nag considérer gën a consolider maanaam gën a li nga xam ne mooy sunu démocratie exemplaire kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne mënees na ko lire ci communiqué bu jógee ci présidence de la république gannaaw. waxtaan boobee nga xam ne am na niki démb diggante président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo di collectif des recalés ñeel élection présidentielle yi 25 février 2024 la mu xam ne rek mooy daal moom mu ngay wéy di nekk dañ ko ubbeeku ngir waxtaan waaye nag décision bi conséquence yu ne xas jël ba noppi nekk na décision bu définitive te ni mënuñ caa def recours dafay rek gàllu ci suñuy ndodd waaye nag képp kàttanam dina ko def ba élection yi ñu dëgmal nekk élection yoo xam ne dina am ci jàmm ak salaam waaye nag ak sécurité bu mat sakk jërë ngeen jëf mbokk yi li ma doon xibaar ci benn vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo bu caalande la tàllale way leen di laaj di ci seen chaîne ku déggan ci page bi te abonné ko ñoo ngi lay ñaan nga abonné activé sa cloche su ko defee dugal ci vidéo